lan mooy euh, seen vision seen programme pour Ndono Gouye Diama <laughs> ndax yaa xam na ah, doo leen dem élection tamit doo leen yóbbu programme <laughs> waaw da ngeen ne am programme boo xamante ne da ngeen koy ficeler pour population effectivement ah, mooy lan mooy xam nga suñu suñu suñu programme fi ñu toll nii du lenn lu dul askan bi li nga xam moom mooy seen bëgg-bëgg ñu defal leen ko ci loo xam te nekk na suñu ay compétence compétence yu mairie bi mooy lan jël courant yóbbu ko ci tool yi ut benn forage boo xam te ni jigéen ña fay def pépinière forage boobu moom la moo leen je passage ma ngi nuyaale ki nga xamanteni moy monsieur le maire matarsi bo xamanteni mom ni tamit candidat la pour buñuy ñuy mu nek un adjoint de l'adjoint maire xam nga donc mom mo yore moy nek président asu asu asu fort moy forage bu nek noto mu def ci combat bu mag maga mag ndax fi la ki le maire magay ndjay dafa taxone pour nangul ndox mi matarsi mom mu taxaw andi sa askan bi xex ba ndox mi wa noto mu na teggu wat ci loxoy noto ndox ndox momu tay buñu buñu ñu dinañ amaat benen forage bo xamanteni ni képp koo xamante ne tey yaa ngi def pépinière ci lañ lay ci ndox moom moom moo lay euh, alimenté aussi tool yi aussi bëgg nañ fa def ay ngan di forage yoo xamante ni donc képp koo xamante ni yaa ngi bay si commune Noto di nga fa di nga di nga mën a di nga mën a am si ndox moom aussi dinañ fa aussi bëgg nañ aussi ay usine de de de transformation ak de aussi des sambufrat kii di tam sambufrat di di usine de de conservation donc loolu aussi bëgg nañ ko bëgg nañ aussi li nga xam ne tey moom mooy école euh, école kii abri provisoire yëpp ñu def ko des salles de classe yu normal bëgg nañ aussi ki li nga xam te ne tamit moom mooy euh, case de san case de santé ñu def ko chaque village ñu def fay case de santé les gros villages ñu def ay poste de santé commune de Notto Dioba am un hôpital te yaakaar ne loolu soo ko waxee du bu ñu waxee loolu loolu lu mun a nekk la la loo xamante ne nii suñu ay compétence la te loo xamante nii aussi commune de Notto Dioba euh, xaalis bay génn si marché bi rek waxuma la gajaga mais marché bi rek xaalis ba fay génn donc yaakaar naa loolu mun nañ ko réaliser aussi dafa am affaire boo xam ne dafa am ñoo ngi dégg tout temps ñuy wax ci euh, Kayar offshore mais ñëpp xam nañ ne gaz fu mu feeñ si jéere ji soo demee si euh, onshore offshore ak onshore la soo soo demee si jéere bi si si géej gi di nga fa fekk di nga fa fekk pétrole donc mais mais euh, Kayar amul gaz gaz bi moo ngi nekk Gajaga donc pourquoi ñu war a jël Kayar ñu bugg jël li nga xam moom mooy pétrole Sénégal bi bu ko bu koo féetale kayaar offshore bàyyi bàyyi bàyyi ku e, noto offshore <laughs> xam nga te gaz bi gaz bi mo ngi nekk si Gajaga lepp ci Sénégal la bokk waaw lepp ci Sénégal la bokk d' accord mais tey buñ ñu demee ba exploitation jot combat boobu dañ koy mené ay titre kese la non attends buñ ñu demee ba explo buñ war ko exploiter te buñ ñu waree génn ay e, commission buñ ñu waree génn ay RSE e pour li nga xam moom mooy oh, commune bi duñ ko dugal commune de Noto commune de Kayar lañ ko dugal mm-hmm. te combat boobu suñ combat la parce que Gajaga si commune de Noto la bokk donc bu bu amee pétrole yaakaar naa ne pétrole boobu dafa war a jëriñ waa Noto mais pas muy jëriñ Kayar kese di bàyyi Noto buy jama ndax alal jooju soxla nañ ko c'est ça pétrole boo xamante ni commencé guñ ko kii sax euh, Ardo yéen déjà commencé non ñun comme commencé nañ suñu bataille dañuy dañuy en fait ñun lu ñuy nekk nii dañuy jihaad pour suñu askan te c'est très normal nee naa la est-ce que li ma lay wax nii ba léegi génn naa si activisme c'est ça l'activisme lii mënoo ko génn si activisme. non génn nga activisme bi nga tànnee sa candidat bopp. bi nga a sa bopp ci liste bi. loolu candidat boo ma tànn candidat boo ma tànn bu élection yi jàllee dama koy bàyyi mu doxal. man ma doxal li nga xam moom laa war a doxal ma jouer sama rôle d'activiste li nga xam te askan bi yelloo nañ ko mu bu ko da koy def bu ko deful ma génn def samay point de presse. est-ce que yaa ngi bàyyi xel ni ki am na fii suba mën na. bien sûr maa ngi tey aussi ci li nga xamante ne mooy sa position. ci activisme non on se donne rendez-vous bi nga bi nga amoon. Mhm. envers euh, tes camarades activistes. Mhm. Euh, ñi nga xamante ne da nga leen doon ŋàññi tey yow yaa ngi ni suba est-ce que duñ la VAR. Euh, non yaa ngi xalaat VAR. je reste droit sur mes wax nga ci programme mais mais euh, li jëm ci loisir jeunesse en tant que jeune. effectivement merci beaucoup Marina Non, tu ma sauvé <laughs> ndaxte est-ce que xam nga commune de notre Gueye Jàmm amul amul amul euh, fu jeunesse bi di Absolument. amul fa terrain de football zéro stade amul stade terrain de football zéro fa ay terrain yo xamante ni donc euh, yakana naa ne ay soo jël jëlee soo fa jëlee nit fi à Dakar wala nga jël nit dans les villes nga yóbbu leen foofu noonu duñ fa fuwal parce que terrain mi ce sont des terrains impraticables. yéen lo leen programmer donc ñun programme nañ ci sport bi buñ démé ba falu vraiment mu am ben stade municipal les autres euh, villages yi nga xamante ñoo wër commune de ñoo wër Noto Guy Jama bëgg nañ aussi am ay des des terrains qui sont praticables. Mhm. te fi ñu toll nii le la développement toll ndax tey jii au niveau de commune de notre pays jama. buñ ko defee euh, communal boo xam mais day participer des jeunes dina bi dina dina dina le matin à vingt francs la nuit à cinquante mille francs buñ buñ ci defee projecteurs recettes la di commune a donc la commune si ko yor exemple euh, euh, un maire wala nga bëgg a nekk un commune wala nekk un conseil timi da nga wara xam li nga xam ne mom la fofu la askan bi toll fofu la fofu la jamono toll bu ko défé yow askan nga mën leen jëriñ ndax jeunesse bi dañoo am walu bu bëré bëré bëré lool ci li nga xam mom moy gestion collectivité surtout la question de l'emploi des jeunes aussi surtout la question de l'emploi des jeunes ouais. À 221, une autre vision de la télé.